Euh, defaral euh, pendant nga koy defar ma avertir euh, internautes yi ñi nga xamante ni ñoo ñuy suivre ci page Facebook bi n'hésitez pas ñu ngi xaar message su anniversaire yi ku ngeen bëgg a bégal rek yónnee leen photom et puis ñun ñu jàllale message bi gratuitement juste après li Alfie di togg tey. nekk benn dessert boo xamante ne pap li koy composé banane lay nekk maanaam moo ëpp ci li nga xam ne mooy ingrédients yi koy composé mais laata loolu rek comme ni ñu koy defee chaque matin xam nga ni partie bër Sofia dafay ñëw beurre Sofia nag euh, boo nee recette sucrée wala nga ni recette salée beurre Sofia da ciy dem ba jeex rawatina tam xarit bi nga xamante ne dañ koy préparé muy li ci mel ni bombu cere nga xam ne bu fekkee nga baaral fekk légumes yëpp ñor yàpp ba ñor diw bi xel li nga mën a tibb tuuti ci diw bi boole bër beurre Sofia pap bomb sa cere jël yeneen ingrédients yi nga xamante ni ñoom raisin la ak ñoom haricot ak li nga xamante ni ñooy jaga bi donc boole ko rek mën a bomb euh, sa cere gëneel bi nga ciy am nag mooy beurre Sofia vitamines yi mu am da koy sotti ci cere bi muy enrichi en vitamine A et E ba pare c'est des produits riches en produits c'est des beurre yoo xam margarine yoo xam ne c'est riche en produits laitiers donc beurre Sofia di leen euh, ñaanal ci kori jàmb maanaam ci tamxarit bi bu leen ko fàtte benn yoon parce que am na ci marché yépp bu fekkee nag li nga xamante ni mooy banaana split bi ñuy defar tey beurre Sofia li mu ciy and li mu ciy apporté mooy euh, li nga xamante ni mooy sauce caramel bi ñu teg léegi ci taal bi nga xamante ni suukar rek lañ ci def daal koy bàyyi mu seey donc bi ñu ko si defee nag pour mën a am boo demee ba am coloration bi daal di jël sa crème fraîche def ci biir donc moom mooy nekk deuxième sauce bi nga xamante ni mooy ñëw accompagner banana split bi beneen bi nga xamante ni moom la ñu am mooy sauce chocolat bi moom it dañu ñëw ci suba daal di jël chocolat bi seyal ko jël crème fraîche bi def ko ci moo tax ñu am Euh, élément liquide bi nga xam ne moom la ñu am ni bu dee chocolat nag mooy chocolat yi nga xamante ni ñooy nekk ci tablette yi maanaam tablette de chocolat yi moom la ñu jël dambat ko seeyal ko def ci crème fraîche donc mu jox ñu texture bi nga xamante ni moom la ñu am ci saladier bi donc glace nag am nañu euh, glace ci plan de travail bi donc moom mooy indi touche fraîcheur bi nga xamante ni banana split bi moom lay indi donc sànq wax naa ko du du du sax recette parce que assemblage la parce que soo gisee éléments yi nga xamante ni moo ciy dem presque benn rek lañ ci togg am naa fi tamit ay amande wala ay euh, noix de cajou torréfiée nga xamante ni ci suba dañu jël nois de cajou wala amande yi nga xam ne moom la ñu am jël pool bi ñu ci benn matière grasse maanaam soxlawu nga ci def beurre sofia daal ciy def amande yi nag bàyyi ko mu mu mu changer couleur maanaam mu doore am effet croustillant donc moom tamit mooy ñëw andi effet croustillant ci li nga xamante ni mooy banana split su fekkee coupelle yi mën nañ koo utiliser pour mën a defar dessert bi parce que foog fi nga ko defaree ci foofu nga koy lekkee mais mën nañu jël tam ay xeetu saladier yoo xamante ni seen forme dafay xaw a duroog banaan nga xam ne da jël banaan bi entier def ko si donc li ñuy li ñuy def mooy dañuy jël dañuy jublu ci banaana bi donc bi gannaaw bi ñu ko xoolee facilité nag ci pour mën a faciliter maanaam ci fi muy dem dañ koy daggat ci biir euh, saladier bi donc def ko ay dog nga xamante ni soo koy lekk da ngay jël par rek mën ko mën ko déguster donc suñ ci jógee daal di jël li nga xamante ni mooy mën nañ dolliwaat tuuti banaana jël li nga xamante ni mooy soos yi accompagner ko mën nañ ci def dolli yeneen xeetu fruit tamit parce que boo nee banaana split tamit euh, terewul nga jël yeneen xeetu fruit euh, dolli ko ci li nga xamante ni mooy mooy banaana bi donc dañuy jël li nga xam ni mooy glace bi ba pare defar benn quenelle gënal wala bu fekkee am nañu matériel yi nga xamante ni mooy mooy tibb glace yi ba mën la jox benn bul donc moom tamit gëneel rek lañ ci am donc mu ñëw ci biir maanaam banaana bi ñu ba donc mën nañ ci tibbaat tuuti donc après bu ñu ci noppee nag ñu ñëw ci sauce bi maanaam sauce chocolat bi nga xam ni wane nañu léegi niñ koy defaree donc moom tam mooy ñëw nappee li nga xamante ne mooy banaana bi ak choc ak euh, glace bi donc mën nañ ko si def généreusement parce que tamit moom moo lay permettre soo koy lekk nga bañ a sentir banaana bi kase jël li nga xam ne mooy amande bi def ko ci mu àndee effet croustillant bi que banaana dafa ku ne xam na ni dafa nooy donc su fekkee am nga amande yi ak li nga xamante ne mooy noix yi donc moom moo siy ñëw andi effet croquant bi donc ñu ñëw nag terminer ci li nga xamante ne mooy sauce caramel bi nga xam ne daf ciy andi benn touche boo xam ne si assez agréable donc moom mooy ñëw finir ci kaw donc soxlawul ñu ciy def lu bëri parce que tamit il faut suukar bi ñu modéré ko sos caramel ku ko dégg xam ni suukar lañ ko defaree donc nii la ñuy defee suñu coupelle yi dugalaat ko ci frigo bi partie bi nga xamante ni mooy congelé ba moment bi nga xamante ni dañ koy dégusté pas ku nekk jël sa maanaam ku nekk jël sa coupelle donc amoon nañ fi beneen boo xam ne dugal nañ ko ci frigo bi donc mën nañ ko defaraat le temps que ñuy terminer ingrédients yi ci plateau bi pour mën ko déguster Pape en privé toujours avec les beurre Sofia assemblage la waaw. et puis tu avais boobu. waaw lévérine vérina waaw nga xam ne daf lay ci ay kaas waaw daf lay daf lay permettre waa nga gis nga gis li ngay lekk mhm. donc c' est pas pour ñu tuddee ko verrine donc daf lay permettre nga mën a gis li ngay lekk jox la appétit pap nga xam ne présentation bi dafay gën a rafet mu ngook merci beaucoup Alfie euh,